soo ñëwee ci ah, géej yow yaa ngi yëngatu ci wàllum. affaire pêche affaire jën yeeg yooyu. di nga bàyyi ji parce que géej gi amatul bi comme lu ma la wax pêche bi du ma nekk fii di wax ne amul na problème wala amul problème je dis franchement la pêche rencontre d'énormes problème ah. parce que euh, la rarification des espèces halieutiques ça c'est visible ñëpp a gis nañ ko. moo tax ngay bàyyi ji nag moo tax. Euh, euh, l'État ñoo ngi def. ay effort pour euh, vraiment euh, euh, éradiquer ce fléau pour au moins euh, l'octroi des licences illégales mm-hmm. mën a wéy dagg pour géej gi mën a ñëwaat parce que comme li nga wax noonu géej gi filiale pêche bi lu muy dundal dafa bari su amee blocage je te dis mm-hmm. le marché est et est donc pêche bi j'ai j'ai fait un appel solennel au gouvernement ñu gën cee def encore ay effort gën cee sensibiliser gën ci vraiment investir si pêche bi pour au moins géej gi mën a amaat comme ni mu war a amee. solo